sëriñ Alsaan Ñaana Seck chef du village euh, ci moom la ñuy jaar euh, nuyu monsieur le maire euh, Talla Diagne premier magistrat de la commune de Thiénaba mu jàllaleel ñu nuyoo bi rek ba ci kilifa yi nga xamee ni ñoo ngànk wàllu administration jaar ci monsieur le sous-préfet ba ñi mu war a jaar yëpp ba ci son excellence le président Macky Sall ñuy nuyu téléspectateurs yi nga xamee ni tamit saa su nekk ñu ngi am mbégte di bégee Thiénaba TV ak Ansar TV fan yële passé Euh, àndoon nañ ak yéen téléspectateurs yi euh, demoon ci benn découverte boo xam ne découverte bu am solo la bu am fii ci euh, commune bu Thiénaba demoon ci Fadema Fadema SA nekk fii ci Thiénaba di entreprise ñu gën koo xam ci toolu Youssou Mbergane nekk fii ci commune bu Thiénaba waaye nekk ci côté Ngomène Euh, ñu fay liggéey nag liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la ay milliards yu bari la kooku di promoteur Youssou Mbergane investir foofu waaye lëkkaloo ko ak ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñooy autorité euh, yi jiite euh, commune bi dem nañ fa visite jël fa loo xam ni njariñ la bu jëm ci askan yi waaye war nañ ko askan wi askan woowu nag ñoom ñoo waññeekuwaat jël seeni téléphone waaye communiqué ak ñi nga xam ni ñooy direction Thiénaba TV Euh, ñu bëggoon rek euh, renseignement yu gën a yaatu euh, jëmee ko ci tool boobu ndax ay bunt yu baree bare bare dafa ubbeeku jëm ci askan wi waaye monsieur le maire bi nga xamee ni tamit moom moo yombal dem bi waaye moo yombal liggéey bi nga xam ni moom moo am foofu ci toolu Youssou Mbergane yi amaat beneen buuñaa boo xam ni bëgg na koo yëkkati jëmale ko ci askan wi nga xamee ni ñoo nekk ci commune Thiénaba Euh, xam naa ni du ñu guddal euh, ci commentaire yi euh, dañuy bàyyi monsieur le maire Talla Diagne mu nuyoo bu nuyoo rek bu ko defee laaj yi nga xamee ni jëlee nañ ko ci askan wi wala moom bu ñaar boobu moo koy tuddee muy xéewal googu nga xam tam war na koo wàccee jëmee ko ci askan wi lépp lu ñu ci war a leeral rek incha allah bu ko defee ñu laaj ko ko mu mu leeral ko ndax lépp mbégte lay nekk waaye su paree dinañ tamit. Euh, des ca tool ba des ca tool ba ci naka mooy euh, am na personnel boo xam ne ñu ngi toog fii ñu toog ci salle bi euh, ca tool ba la ñuy xëy fa la ñuy gont ñoom tamit dinañ leen dëkk micro ndax keroog bi ñu demee ci tool bi dañoo fekkoon ñu nekkoon ci heure creuse mooy heure yi nopp lu nekkoon ci seeni kër fekkuñu leen woon ci tool ba waaye tey am nañu occasion toog ak ñoom ñoom tamit danañ leen laaj euh, yenn laaj yi nga xam ne moom la ñu dese woon euh, bu ko defee ñoom tamit ñu tontu ci euh, bu ko defee mu nekk mbégte moo xam ne dañ koy partagé monsieur le ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la nuyu di la bàyyi tamit nga nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñoom nga jàkkaar lool eh, ñoo ngi nuyu bokk jullit yëpp di jiital ci ñoom Baye Abdourahim Seck xalifa généralu Thiénaba di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér Eh, di nuyu Baye Assane Seck mi rakkam di nuyu Baye Ñaaxa sekk waaye di nuyu ki mag ci set yi muy Serigne Jibrilu sekk mu tegal na ko ci loxol kullu ku sant sekk di nuyu population commune Thiénaba eh, di leen siyaar di leen balu àq ci weeru koor bi nu génn xam naa sax defal naa ci benn débat waaye nag lu baax moom du doy ñu ngi leen di ñaanal yàlla lépp luñ ci jàmm yàlla na ko yàlla nangu eh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp eh, ndax loolu moo nu war te loolu it mooy ab jullit li mu seq ak moroomam jullitam même bu dul woon sax eh, ma nekk maire saa bu ma xëyee war naa balu àq ñëpp sant leen gërëm leen sëñ jàmmee xewal gi manes na koo tudd waaye manes na koo làmb daj ndax day am loo xam ni ci làmmiñ lay jóge waaye am na loo xam ci jëf nag lay jóge ñaar yëpp nag bu dajee lépp day baax parce que wala fii nee na nan ko def ju nekk nan ko wax moo ko jiitu te bis bu nekk nga dégg li lëmbe Sénégal mooy xëyum ndaw ñi ak jigéen ñi moo lëmbe Sénégal e, commune boo dégg muy wax xale yi amuñu liggéey amuñu liggéey loolu nag jeex na commune Thiénaba ndax lu yàlla jeexal moom une fois mu jeex xéewal gi nga xam ni moo fi am fan yi paase wane ngeen ko ci image yi ku ne teg ni ci sa bët xam nga looy wax nag ak looy làmp daj du benn lii nag dañ koo wax mais danoo làmp daj ñépp teg ci seen bët lu day ni juróomi téeméeri nit yu topp di xëy ci commune ba di wàcc te ñi ci gën a néewle saa bu ñu xëyee ñu fay leen deux mille cinq cent bu la neexee nga bole ko ba weer dee lu bon bon nga am fukki fukki junni ak juróom xalaat naa ne ku ko xeebul mën ngaa am xëy waaye buñaa bi ngay tudd léegi li ci dolli ko waat mooy commune ba leen bëgg mu soqali ko moo taxam ñu xëcc projet bi ba andi ko fi ah lu ne dégg nañ ko ci nekk ci aw metit waaye nag njaal benn gu nekk noonu lay deme ndax nit nit ki lu mu xamul war na koo critiquer waaye su demee ba xam ko nag ba gis njariñ la war na caa soobu eh, sëñ njàmme eh, projet bi liñ ci xamagul mooy lu yées yées yées ñett te juróomi téeméeri nit ak juróom fukk ña nga fay liggéey te ñëpp doomi cene ba lanu tey nag ñoom dan ma woowaat wax ma ne ma lu yées yées yées soxla na mille cinq cent personnes junniy nit ak juróomi téeméer loolu nag balan koo jëggaani fenn dañu koy wax suma commune ba pare kon ma jàpp ni aw moom xëy jeex na fi taamu nag mën naa am waaye aw moom xëy moom jeex na ci commune Thiénaba ma bëgg nag askan wi population commune ba ñu ngi ñaan au kon ay jàmbur di ko jël waaye maa ngi ñaan sama population ñu jël ko ba pare su nu jeexee nag te doyulunu ñu soog koo jëggaani waaye li nga xam ne moom laa yëg nga xam ne xaw naa koo for ci wewu béy dafa mel ni boo xefee commune Touba dina ko jël ndax nag li wolof di wax ne bu mbul bañee làmbaay nangu kon nag ma bëgg sama population ñu dimbali ma mbargaan bi sorewul kër ma laamin la te li ci dàqati mooy ñoom su fekkee ni nii mat nanu kaar denn fexe ba ab kaar jël si leen yóbbu leen te loolu nag war naa yomb cana ba am na dëkk yoo xam ni la fa nekk ëpp na kaar waaye kaar mënu faa dem cana ba nag am na nu occasion kaar mën a départ fii wala ñaari kaar parce que sax biir cana ba danoo xalaat ni normalement ñeenti kaar war na fee mën a départ par jour ndax ku gis jigéen ñi li ñuy daj ci ndamaraas bi di xëy dem ndakaaru tant essence la man ngaa jaay junni bëgg ca junneeg juróomi téeméer nga xëy jaay lépp am juróom-ñaar téeméer ay bor topp la ci kon ma jàpp ni boo xëyee mën a dem ci yuusu mbargaan balaa quatre heures nga am sa juróomi téeméer boo amee cawarte loo ca dolli ñu fay la ko kon ma yaakaar ni daal cene Eh, maa ngi leen di ñaan eh, waxu awma liggéey na fi jeex góor ak jigéen nag lañ ci yemale góor ak jigéen mille cinq cent personnes yooyu ay góor la ak i jigéen góor ñi nag ñoo wax ni ñi ci ëpp ñoo wax ni amunum xëy waaye jigéen ñi ci ëpp ñëpp ñi ngi xëy daan seen doole dafa wuute nag ñi day aw penku ñi am saw ñi aw droite ñi aw gauche waaye tey nag benn penku am na boo xam ne mu ngi aju ci commune bi muy partenaire boo xam ni yàlla mën naa dogal balaa ren di déwén ak soqali ko mën na faa am kon ma bëgg nit ñi ñu dimbali ma jéem maa jàppale ñun ñëpp ñu mobiliser wu dem làmb monsieur yaakaar naa ni li nga wax euh, leer na euh, ci communication bu leer euh, wax naa ko léegi bi may ubbi ma ni am na ay laaj yoo xam ni maa ngi ko jëlee ci nit ñi bëgguñu leeral ko waaye euh, am na ci euh, information yoo xam ni keroog ba ñu fa demee euh, dama ci suuf nag xam nga ab journaliste moom day def investigation maanaam day laaj ci suuf pour mën a xamal askanam nee nañ ma am na fa 15 hectares fukki hectares ak ak ak juróom yoo xam ni soble lañ ko bay te te mu ngi ci suuf si dañ koo war a déqi kon xanaa loolu moom mooy waral ñu soxla personnel boobu pour mën a dindi loolu. waaw xam nga bi nu fiy dem bi nu taxawee ci ci baaj bi. boo xoolee sa côté penku di seen àll boo xam ni bu yaatu la muy 15 hectares lépp soble la jal yooyu ngeen gisan euh, wax nan ni juróom-ñeenti trémo mooy juróom-ñeenti saawo moom lañ jot a dindi moom lañ jal noona kon la fa des war naa ëpp junniy saawo kon tey bu fekkee ne yàlla dogal na dindi nañ ko lu yéeme dina fa am waaye nag ginnaaw borom fàggu fàggu na ba feeg juróom benn weer lu mu fi def du yàqu loolu nag moo moo moo tëwan ñaay bi moo tax marchandise mi lamb tey nag am nañu occasion boo xam ni at mi yëpp ñun commune ba kenn mën nañoo bañ a jëggaati pompe terre jëggaani soble te gis nga njàmmee li ci day waar mooy euh, mbargaan yemul ci fay la sa surne jigéen ñi ñi ci ëpp ñëpp koy dem yóbbaale ëmb am na ñu taxaw ci bunt bi bi ñuy génn ñun ñu taxawoon ci bunt ba am yooyu la ne xaar ñu ñoom ñu jaay leen ko loolu sërëcë la loolu nag ndimbal la kon daal 15 euh, hectares yooyu bokkul ak li nga xam ni mooy euh, buddi ñaxu soble bi boo ko seetee ñaxu soble bi sax moo ëpp ab liggéey moom la gën a soxla ay nit parce que soble parce que soble bi euh, fii 4 mois ci kanam lu mu gën a yàgg ci suuf di gën a formé du yàqu kon yàkkamtewul waaye nag bëgg a dimbali nit ñi moo tax mu renforcer ko ba soxlawaat mille cinq cent personnes pour ñu mën a dem liggéey foofu ci mbargaan bi. macha allah mu nekk lu am solo kon euh, beneen information bu jógee foofu ci monsieur le maire euh, waaye gis ngeen kon xéewal a nii sorewuñul dara euh, nekk fii ci Ngomeen. muy Youssou Mbergane macha allah di bay soble ak pomme Euh, am na fa soble boo xam ne mu ngi ci 15 hectares keroog bi ñu fa demee euh, renseigné wu ne ñu mooy soble bi dina génne 70 tonnes par hectare tey ñu ne la 15 hectares euh, mu ngi ci biir suuf si ñu war ko dajale dindi dajale ko pour def ko ci ay saaku kon loolu liggéey la boo xam ne liggéey bu yaatu la ci ay weer beneen bi may bi may wax dégg ngeen ko ci communication nee na 1500 personnes la ñu soxla déjà la fa nekk matagul 1000 bu ñu ne woon sax 500 rek la ñu soxla loolu lim bu bari la lim bu takku la euh, cent 668 personnes ñoo fay xëy euh, boo dajalee góor ñi ak jigéen ña kon euh, xaaj ba sax li ñu soxla xaaj ba amaguñ ko kon yow mi nga xam ne yaa ngi may seetaan ngay góor wala ngay jigéen ngay ndaw xaaj na surtout ndaw ñi ñi nga xamee ni boo gestoo di nga gis waajur xaw a néew doole tuuti kër gi xaw a metti gisatuma nag benn lay boo xam ni la bàyyi Abdou ni waxoon ca ca ñàkkee ca vaccination bi dina lay jeex na yaakaar naa nag fii tamit lay jeex na lay moom amatul euh, xanaa jéem a xool rek nan lañuy ñuy organiser woo euh, pour mën a dem euh, ca tool ba waaw beneen bi monsieur le maire mooy dañ ni journée boo xëyee 7 heures ba 15 heures 2500 la loolu la ñu waxoon ci reportage bi amaat naa beneen renseignement tamit boo xëyee 7 heures ba 16 heures mën nga am journée mille Euh, boo loo gën a def say heure supplémentaire tamit sa xaalis mën naa yokk mën ngaa dem ba si ay quatre mille cinq cent euh, ci journée yu demee noonu est-ce que loolu wér na ak aussi euh, fay gi est-ce que yombal am na ci. waaw jërëjëf sa njàmme loolu la ñuy wax supplémentaire nit ki fa mu toll ak fiitam fa mu toll ak bëgg-bëggam foofu la alalam di toll danoo déparé ci deux mille cinq cent mooy xëy 7 ba trois heures waaye su la neexee nga xëy 7 ba 10 heures ci guddi su la neexee nga xëy 7 heures ba minuit ci guddi kooku sa kartan ak sa fit lum la may mën nga dem sax ba am ci journée bi mille francs kon mi ngi aju ci yow rek loolu wér na maanaam nag bu nu waxee ni boo xëyee 7 ba trois heures di nga am 2500 mooy ñu sori ñi wala jigéen ñi. wala ngi nga xam ni mënuñoo guddee àll foofu lan ko limité waaye dema ni mën nga xëy am mille francs ci bis bi kooku ci yow la aju te sooy paree jot sa xaalis mi ngi aju ci yow su la neexee nag ngay dan ma ko fi bàyyil ñetti fan juróomi fan une semaine un mois kooku noo noo ko bëggee rek parce que dañuy wax ni eh, baykatum ñaambi ki ki mu baax mooy ko amu des waaye nag boo bu fekkee ni da ngay yaakaar ni saa boo xëy dem xool ko ba xam am am na lu fet nga jéem koo buddi pour mën cee def dépasse jërul ngay bay ñam bi moo tax it lu mel nii pour nga mën cee am dara mooy dangay ngay jiital dépasse nga xam ne bàyyi nga dépasse ca kër ga mën ngaa toog ñaari fan ñetti fan doo soxla loolu boo doole juróomi fan nga jël ko remplacer loolu soog a continuer wat mën a toog fukki fan man ngay dem ba toog un mois yoo xam doo soxla sax ñu fay la ba boo ko dajalee man ca dara Euh, ginnaaw départ bi transport bi day métti ci ñoom man dinaa sacrifier sama bopp képp koo xam ñëw nga ci sama buntu kër oto bi dina la jël yóbbu la nga dem liggéeyi suñ demee nag ba mu wóor ma ne mat na kaar dinaa toppatoo kaar boo xam moo leen di yóbbu moo leen di andi. monsieur le euh, wax ji leer na mais dama la doon ñan xam naa ni interview bi dama koy organiser à ma façon nga may ma rek ma dagg la foofu parce que olof dañuy tungu ni du teew ñuy nataal euh, Pape Dieng mu ci salle bi. ci mbergaan lay xëy fa lay wàcc euh, nga may ma ma dem ci moom mu jox ma ay renseignements yoo xam ni peut-être moom moo ma ko mën a jox ndax li olof naan tungu lu teew ngay nataal euh, ma dog a ñëwaat ci yow bu ko defee nga joxe sa tàggatoo ci plateau bi euh, bu ko defee ñu tàggatoo bu fekkee loolu mën nga ma ko may. waaw ah, bëgg naa avant ngay dem ci Pape. mook maar. gëm-gëm. moo leen fa dugal. Mm-hmm. waaye ba nu fay dem xamuñu la xew. dëgg man rek maa leen maa leen contacté du yuusu moo leen contact man maa leen contacté may leen am na ñetti poste wala ñaar yu fa nekk yoo xam la muy def lu su ngeen ko manee su ngeen demee ñu jël leen jàpp leen nag di ngeen ko def parce que di ngeen ko man ndax am naa ci yaakaar ba nu demee wuseenu mi sama doom ànd ak ñoom ba mu dikkee la ma wax ne gaaña dafa mel ni toujours ci leen daa xëy lan leen def loolu lépp mën nañu ko loolu nag sama sama xel ci la dale parce que euh, Youssou mën naa am ci man yaakaar wala ma am ci ñoom yërmande pour bëgg leen a dimbali ñu dem ñu rusloo ma waaye nag la nga xam ni moom loolu laa fa jëlee mooy ñoom rusloowun ma te rusloowunu population Thiénaba te euh, population Thiénaba ku leen rusloowul rusloowoo Baye Abdourahim sekk kon maa ngi ñaan nit ñi nanu def ni Pape Dieng ak Maar nanu dem essayé ji ba xam luy xew loolu laa doon ñaan loolu rek laa ci doon dugal. waaye li nga doon ñaan may naa la ko. Euh, très bien euh, kon mu ngi noonu euh, dañuy dem ci Pape Dieng moom ak El ñu ngi toog macha allah ci salle bi ñoom fa la ñuy xëy kon xam nañ la fa xew Pape Dieng mooy joxe ay kàddu yu seede bu ñu paree rek daal di ñëwaat ci ki nga xam ne moom mooy monsieur le maire. mu tëjal ñu jataay bi bu fekkee ni amul keneen koo xam ni xañ na am na lu mu bëgg dugal ci biir salle bi bu ko defee rek noonu lañ ko organiser kon Pape Euh, la ñuy dem déglu ko. la maa njàmme ñu ngi nuyu waa Thiénaba gépp di jëtal ci nuyoo bi ba Ibrahim Seck di ko ñaanal wér mu yàgg fi lool di ko wàcce di ko jox nuyoo bi mu wàccal ñu ko waa Thiénaba gépp ak li ko wër ba tool ba mën naa nii amatul lu mu ciy wax ndax it bu fekkoon ni dañoo jógee ca tool ba ñëw fii rek ngeen dëkk ñu micro mën nañ ni bu ñu waxee askan wi duñ ko gëm n'est-ce pas du ñëw ngeen fa ci sunu ginnaaw ñu xëy ba wàcc te suñu heure wàcc bu jotee foofu ku ne bu sa heure wàcc jotee ñun ñi nga xamante ni dañoo yor machine du nangu nga toog fa benn heure bi ndax kuy liggéey ci machine am na heure boo xamante ni da ngay récupérer bi ci suñu ginnaaw nag ci ngeen ñu wax ni ñëw ngeen fa waaye ba ngeen fa ñëwee du gis ngeen ko kon nag li waraloo jotaay bi tamit tungu ni du taxaw teew ñuy notaal moo waral lii kon gis ngeen la ngeen fa jëlee gis ngeen ko cee na ba gis naan ko ñëpp teg nañ ci seen bët léegi nag comme lu dul mu ñuy lancé appel boo xamante ni comme li nga xamante ni moom la ñëpp doon wër li naan dimbalu suñu borom du ànd ak coono du ànd ak poussière yàlla def boo dee xool ci commune yu bari ak fu bari tool bi nga xamante ni yàlla def na wàcce na ko ci commune Thiénaba muy loo xamante ni mën naa ni sax borom tool bi xëy na lu ko fi tax mu def ko xamu ko waaye lii maam yi ñoo ko fi sanc ñoo liggéey lii kon nag gis ngeen ko teg ngeen ci seen bët ñàmmee loolu laa lay bàyyi kàddu gi ba xam. beneen bi may bi ma bëgg nga yóbbaaleel ma ko mooy yow da nga xëy ca tool ba wax nañ ñu ni 668 personnes muy juróom-benn téeméeri nit ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett euh, actuellement ñu ngi fay xëy di fa wàcc euh, ñu ni dañoo soxlawaat main ay loxo lu toll ci junni ak juróomi téeméer loolu nekk nag nombre bu bari tey yow mi dëkk Thiénaba di yeewoo Thiénaba xam ne aussi na ba soxla nañ loolu tey ñooñu loolu leen di wax. tey loolu li leen di wax rek mooy njàmmee tool bi maanaam dayu gi ak lim bi sax dañ leen ko wax ne waaye na loolu ndax lim amul fu muy yem danooy def ci ki nga xamante ni moo nekk ci porte bi dañuy def ku ñëw rek ñu jël ku ñëw rek ñu jël la même waa Thiénaba bu demoon tey tey suba suba dañ leen di jël même li nga xamante ni moom lañ déclaré maire dañ koo wax noonu rek waaye am bëgg na lu ko ëpp. ndax da xool ni bi en bi Korité gi jubsee am na quinze hectares yoo xamante ni am na ñu fa doon xëy danoo dem ba pombiteer bi ëpp ñu doole ñu raye leen indi leen ci pombiteer bi quinze hectares mi ngi ci suuf yoo xamante ni war nañ koo génne ci biir suuf si fa mu nekk defatu fa dara soble bi nga xamante ni nag moom mi ngi jóg ñu war a buddi ñax mi lëngër bi quinze la beneen côté bi nga xamante ni moom lañ dindee pombiteer bi ci Korité gi def nañ fa soble boobu mu nekkaat quinze hectares boobu tamit ñax mi mi ngi jóg te yeneen quinze hectares yi xaajagut léegi nag message bi nii laase muy tey jii bi nu génnee maa ngi koy wax maar am na fa gis nañ fa ay ñetti pose yoo xamante ne damay leen nit ñi bokkuñu ci commune Thiénaba ñetti pose yoo xamante ne dañoo yeb ba fees te bokkuñu ci commune Thiénaba te fa leen. yeneen yeneen commune lañ jógee ñëw fii. yeneen commune lañ jógee ñëw foofu xam naa ne ay côté Touba Toul wala Xombal lañ jógee ñëw foofu ak boroomi sareet ñëw fa defa liggéey si boo gisee nag ñun ñu lancé appel bi dëkk di doomu Thiénaba ñuy wax lii danoo bëgg maanaam li ngay dàq kéwal mu jëm ci àll ba dàq ko mu ñëw li nga xamante ni ci sunu commune la wàcc ñun ñoo ci war a mën a gën a intérêt wu ka kaneen ñëw di fi jéggaani xam nga ni Toubatul bokkul ci commune Thiénaba kon bu fekkee jeunes yi jógee nañ commune Toubatul ñëw ba commune Thiénaba di fi daan si doole kon ñi dëkk ci commune bi lu ñu war a def te mu nekk ci suuf commune bi loolu moo waral suñu jotaay bi dañuy lancer appel wane ni fee nit moo fa ñëw investir fa ay milliards jaar ko fi mu ko war a jaar ñu ubbil ko ay bunt kon nag ndaw ñi nga xamante ni ñu ci commune bi ak Thiénaba nañ ñëw teg ki loxo ñaan ma loolu mooy sama appel bi may lancer. Euh, beneen bi may laaj xañ na kii seetaan dina bëgg ma laajal ko ko mooy fa ngay xëy fa ngay wàcc fa ngay liggéey euh, ci wàllu fay gi. Euh, yombal gi ci am ak yu demee noonu parce que bari na koo xam ne xañ na euh, calculam bari na lool. loo koy wax ci wàllu woowu. waaw maanaam li ma koy wax maanaam gëm naa ni kila la ki la ki ëppale solo moyetut du lekk saw ñaq nit nag buy wax day wax digganteem ak boromam ñun bi ñu fiy dugg bi ñu fiy dem danoo toog fii rek sama nijaay woo ñu man ak maar ni ñu dem leen ci tool wi ay conducteur lañ soxla. bi nu demee ñu def fa test diggante huit heures ak deux heures ci bëccëg ñu jàll du lenn nag ñoo ñu fa dugal comme ni ko Ndiaye Talla wax suñu xam-xamu bopp ak suñu métier moo ñu fa dugal ñu fay liggéey waaye nag njàmmi li gën a yéeme ci mbir moomu ñoom li nga xamante ni waxoon nañ ko ak ñoom ci biir deux mois yi test bi parce que six jours lan la lan fa def maar xóoma une semaine ñu daan ni deux mois yi leen signé woon ak yéen dootuñu xaar deux dañ koy commencé ak yéen ndax yar bi ak seen métier muy loo xamante ne nag foogewuñ ko woon nag foogewuñ ko woon waaye nag comme ci fi nga waxee dinaa la fi tontoo foofu dañuy fay une semaine dañuy fay quinze jours dañuy fay un mois ça ci li gën a yéeme boo liggéeyee une semaine fa nga taxaw lan lay fekk def ko ci enveloppe bind sa tur jox la ko du tardé booy wàcc bu une semaine bi jotee fanaan lay fekk fa nga toog bala ngaa génn ñu bind ko def ci sa tur jox la sa xaalis duñ la amel benn dërëm loolu moom mën naa koo wax ndax maa nga fay liggéey wax dëgg yàlla. macha mu nekk lu am am solo xam naa ni euh, dama lay joxaat micro bi rek su fekkee am na lenn loo xam ne xaj na bëgg nga koo jàllale te laajuma la ko euh, nga jàllale ko tàggoo waale bu ko defee ma delluwaat ci monsieur le maire. waaw message bi may jàllale rek mooy kone xam na ni boo seetloo koros euh, xombal am na oto yu fi daan jóge di yàpp ñiy buddi ji fii ci apias bi ariko bi xam nga ni xombal ak ak ay ñi jóge xombal di dem ba ci apias bi mooy xam nga côté jas bi moo gën a sori kàcce na gi te dem daan luye ñoom ay kaar di dem ba foofu kon yàlla def nag ak wàcce na ba gaar am na ñoo xamante ni ci ariko boobu lañ doon xëy de léegi ñi ngi ci tool bii am na nag ñu dëkk Thiénaba ñu fay ñëw ñu fa commencé di liggéey waaye nag damaa bëgg waa Thiénaba fees fa dell su ma gëstoo gis ku dëkk Thiénaba man loolu laa bëgg muy góor muy jigéen njàmme dafa am loo xamante ni foog ñu bàyyi ko xel dafa am ci korte gi bi ñu fiy liggéey ñun dañ doon liggéey ci guddi gi dafa am boo yoo xam ne ay élève lan dañuy jàngi waaye bu 19 heures jotee dañuy ñëw liggéey si kaaru guddi bu 6 heures du jotee ñu dem sangu ci toilette di jël seen saak wéekoo ko noonu ñuy génnee dem jàngi ay quelques boo yoo xam ne man nag ñoom ñoo nekkoon ci biir chambre boobu nekkati boo yëpp nekkati ay élèves la 19 heures la ñuy ñëw bu ñu posé une ñu toog am lu ñu def ci seeni bagages continuer seen bu 6 heures ñu génn dem. ñoo est-ce que canaba lañ dëkk. non ñoom dëkkuñu canaba boo yema ci gis moom wax dëgg yàlla dëkkuma canaba dëkkuñu fa waaye nag dem waaye ci commune bi nag lañ dëkk waaye nag li ma bëgg mooy Baye Ndiamé dama bëgg waa canaba xale yi surtout ndaw ñi ñu ñëw. te heure bi nga xamante ni moom la booy di fees si terrain bi fay jotewul ak dara su la neexee nga xëy sa tër ci suba trois heures nga wàcc su la neexee nga continuer comme ni ko monsieur le maire wax sans ci yow rek waaye loo liggéey ñu fay la ko canaba nag damaa bëgg góor muy jigéen mag ak ndaw ñëpp ñëw te nag dafa bari ay catégorie liggéey mairie sax ba ci mairie am na ci liggéey boo xamante ni ñoom dañuy toog fi nu toog man maa leen di wàcceel pompiteer bi dañuy toog rek di tànn te foofu amul naaj amul dara dem ngeen fa maire dañuy liggéey du tee tamit bu weer dee fa leen fekk leen leen di fekk jox leen seen xaalis wax dëgg yàlla fee moom macha allah daal wax dëgg yàlla na ñaan yàlla daal yàlla defal ñu ci jàmm suñu xool sedd na ci di ci sant monsieur le maire mii nga xamante ni moom it xëy na comme ni mu ko waxee métti woon na waaye tamit am na loo xam ci suñu borom tegee loxo rek mu mu mu yéwén na ci yàlla gën a teg loxo suñu xol sedd na ci moom kontaan lu baax ndax amuñu lu dul toog man ak maa rek mu woo ñu téléphone ni ñu. borom tool bi dafa soxla ay emploi ñu dem fa diplôme lañ fa dugge waaye wax dëgg yàlla tamit waa tund woowu ak li ko wër moom wax dëgg yàlla gis nañ seen bopp ci tool bi moom macha daal. damaa gis ku joxe benn camion. ku joxe benn. ku joxe benn camion. benn camion moom doy na ndax njàmme moom moom maa ngi woon maa ngi woon Ndakaaru 96 ba léegi 97 laa yow yow yow nga ne bu la joxee camion doo jël fi moo la gënal camion. non puuf. maar de nga taxaw fee di wax nee na moom camion doy na sëg. Ah, damay ñaan jàmm maar sax bi ma ñëwee xam nga maa ko njëkk wàcc. korte gi mu ne ma pap waa tool bi jox nañ la saako soble ak saako pomme ma ne ma lu <laughs> man ak maar maase moto lañ yor. dañ koy fay chaque jour mille cinq cent chaque weer dañ koy bologeel xaalis te ñu ñoo ci sol essence. am ñoo xamante ni tamit ci ay dëkkaale dañ fay louer oto. xaar leen bu oto bi wàcc. ci ña liggéey ñoo koy fay ci seen poos kon meer nag bu defatee lii moom kon mu gën a neex li ñoo leen sama buddu kër mu yóbbu leen boo wàccee dem ak sa xaalis waaye loolu lépp nag li naan dimbalu suñu borom du ànd ak coono loo gën a man ren yàlla na nga ko gën a man taxawaay yi rafet na suñu xol sedd na la gën a bàyyi ci suñu kanam ci kanamu commune bi boole woo daraa ki wax nag nit nag boo ko xamut xamoo ko boo ko xamut rek xamoo ko waaye nit nag bala ngaa wax ci moom da ngay sóobu ci moom ba pare wala nga am foo jaar ak moom ba pare la ne loo wax mu saf nit ñi waaye koo xam ne da lay romb di dem rek wala nga dégg rek di wax kooku safewut nit bala nga koo xam lañ naan nit am na loo xamante ni olof koy wax kooko macc nit la la mu affaire kooko macc ko xam <laughs> kon nag bàyyi jàmme mi ngi doon suñu xol sedd na daal kontaan bu baax ñi ngi woo waa Cere ba gépp gépp gépp daal ak li ko war sunu xol sedd na kontaan bu baax jërëjëf Baye Jàmme sunu xool seeta na ci yow bu baax a baax alfa rek ak yow mi nga xamante ni da ngay kilifa ci kër gi di sunu lépp di nga nekk kilifa ak maar nekk ko sunu kilifa sunu xool sedd na ci yow taala mi nga xamante ni tamit di sunu moroom moom tamit yaru macha allah waaye tamit noonu la mel a mel wax dëgg yàlla di leen ñaanal fépp foo xamante ni réseau bi egg na fa yàlla na fa gën a egg kontaan na bu baax sunu xool sedd na. waaw kontaan nañu baax. mais Pape lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi la ñuy liggéey après dimanche dañuy nopp. waaw gañ sa moom nga fee maar noo koy waxee. gañ sa moom la. amul sax kon gën sa moom bi gars booy di wax ci terrain bi. bee mooy gën sa moom. bee gën a neex. ndax xam nga tax man dama daan xëy 7 heures. wàcc 3 heures wala wàcc 3 heures du ma mën a xoolee comme que gañ sa moom la maar ni ma Pape xanaa mënatoo ko dama ko daan fanaanee ngay xëy 7 heures di wàcc 3 heures damay pousse ba 7 heures ci suba dama ciy toog 7 ci machine bi ba 7 heures ci suba gañ sa moo leen la loo liggéey moom lan lay fay te doo lee liggéey ma def ko jeex na tàkk waaye moo taxit neex na de moom kay meer suñu xool sa maire Youssou moom nee ko amaat na fii ectare yi du jeex fii jërëjëf jërëjëf euh, sëriñ Pape macha allah wax ji leer na euh, waxoon naa leen ko léegi rek ma ni tungu di teew ñuy nataal su ngeen ko déggee muy wax xam ni li muy wax maîtriser na ko te ci environnement bu bu sain ci la nekk environnement boo xam ni féex na euh, ca fin ba dégg ngeen laaj naa ko laaj boo xam ni euh, laaju tooñ la woon waaye ndeke du tooñ ndeke laaj ba sax moom da koo yàkkamti woon mooy euh, pap ku ko xam xam ni chauffeuru camion la woon El Hadj Marguy ku ko xam-xam ni chauffeuru camion la waaye ñoom Euh, dem nañ fa ci kanalu monsieur le maire def test réussir actuellement ñu ngi ci biir euh, tool ba foofu la ñuy liggéeyee ma ne ko nag camion yi nii boo xam ne day dem Mali wala muy dem ci biir euh, réew mi waaye nee daal camion daal nañ ko bàyyi ndax yàgg na ci te bunt bii mu gis nii moo gën a feex ci moom te moo gën a noppale day wàcc ñëwaat duggaat ci biir famille loolu nag dara dàqu ko euh, ñi nga xam ne yàgg nañoo tukki nag di liggéey ci biti euh, li may wax ñoom dinañ ko xam euh, macha allah wàcc ñibbi sa kër dara dàqu ko yàlla na yàlla sottal ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi kon tool baa ngi noonu yéen téléspectateur di waa commune bi tool baa ngi noonu xéewal la buntu liggéeyukaay bu ubbeeku la bu ngeen déggee Pape nag wax ci lépp intéressant mais dégg nga ndeke am na ay jeunes yoo xam ne ay élèves lañ dañuy jàng. waaye ñoom ndeke bu ñu wàccee 19 heures dañuy dem ca tool ba euh, fa la ñuy fanaan di def ay heures euh, pour mën a yóbbu am lu ñu yóbbu seen kër ñoom nag ñoo xam lu tax ñuy def loolu waaye yow mi may seetaan euh, te nekk koo xam ne xañ na sax doo élève waaye defoo dara da ngay chômer Euh, bunta ngi nii boo xam ni euh, tey boo ko ubbeelee sa bopp bu ëllëgee di nga ko réccu kon jéemal a sacrifié wu nga jige euh, ñi nga xam ni ñoom ñoo ilif tool bi wala nga jige sax tool ba jërul sax jaar fenn jubalal directement ca tool ba rek boo demee ñu ubbil la bunt yi nga dugg wax ni damaa bëgg liggéey ñu jël la loo am dem yóbbu ci sa njaboot loolu am na solo monsieur le maire dégg nga ki nga xam ni mooy Pape seede bi mu génne Euh, jaajëfal la waaye euh, wax na muy dundee ca tool ba mu nekk loo xam ne lu am solo la euh, looy teg ci ay waxam bu ko defee ñu doog a mën a duggaat feneen. Eh, dañuy wax ni métier li ci gën a bon mooy xeeb métier moom boo ko xeebul saa boo xëyee jot sa wërsëg te fi nu toll nii. ku la gis ci caméra bi te xamula day jàpp ni xamoo nu laa lépp turéel te yaa ngi sa métier nga denc ko kon tey maa ngi ñaan ñi war a xëy yor seen turéel dem ndakaaru wut foofu surne sunu wàccee lan ca amee néew ñu paas ko andil seen so seen seen seen njaboot tey am na lu gën a jige da xëy oto jël si la nga dem ci mbargaan bi lan la jox nga def ko ci sa poos doo ci fay dara yàlla dogal boo dikkee fekk sa njaboot kon maa ngi ñaanaat askanu commune Thiénaba e, wërsëg nag commune ba rek moomu ko wërsëg nag feeñ na fa waaye bu ma sañan kenn du leen ci jiitu arrondissement ba laa nekk nekk département Kees am na ko wax léegi ni eh, aruko bi nekk ci eh, yoonu jas ay poste daa jóge xombal même Thiénaba gaar bii am na équipe boo xam ni kaar moo leen fi daa jële bis bu nekk yóbbu leen bu ngoonee ñu indiwaat leen waaye tey est-ce que dépare Thiénaba gaar wala Thiénaba Seck dem jas ak dépare Thiénaba Seck Thiénaba gaar dem Kër Malamine Ndiaye lu gën a yomb te loolu day continuer parce que la fa nekk ci ay milliards du caaxaan moo tax ñu def ko du benn at du ñaari at du fukki at danoo ñaan yàlla mu law ba abadan waaye nag ñuy ñaan fukki mbargaan dugg ci commune ba kon yaakaar naa ni léegi coow lu jeex waaye tey nag ñi fi nekk di wax ne amuñu mu am xëy bay bind di ñaan ministre bi wala ñuy ñaan président boo ko tànnan tey matul ñetti téeméer wala ñeenti téeméer tey nag ñu ngi soxla junni ak juróomi téeméer kon ñoom lanu soxla woon mu ngi ci biir lenu soxla nga xam ne matu ko sax asaka kon dama bëgg yéen fab leen li ngeen am dem jëli ko la ca des nag ñu si dem jëggaani ko parce que commune yi ñu dendal suñuy nawle lanu te ñu nungoo liggéey lanu tey rek diggante kër Ibra Gueye ak kër Njaga Sarr la fa jógee mat na ñetti oto est-ce que bu wàccee ba gaawul dem est-ce que ñuy jóge ak pirum ndëri est-ce que duñ daw ñëw su boobaa nag bu nu wax ni ñun moom ñun ñoo ko moom ñun la gën a jige waaye mënuñoo liggéey danoo wax ni soxla na nangam su matee dañuy arrêté kon bala noo arrêté dem leen jëli seen yëf loolu laa leen di ñaanaat ngeen dimbali ma ci ngir yàlla te nu bàyyi taatu garab yi ak grand place yi grand place day tasum réew ndax dinga dégg loo war ta dégg di nga wax loo war ta wax te nit kii saa bu ko moroomam rombee mu wax ci moom baat boo xam dëgg la jëw la loolu dañ koy aaye waxuma laa nag boo waxee loo xam dara leeru la ca am na foo xam boo fa nekkee doo tala wax lu loo xamul doo tal tala wax lu sa yoon nekkul nanu dimbali suñu bopp respecté suñu bopp parce que respecté sa bopp mooy respecté sa nawle képp ko respecte sa bopp rek di nga respecté sa nawle te li xew ci réew mi day tasum réew wax loo xamul du ralaate te dara leeru la ci lu dul rek bëgg bës bëgg bës ba am sawara rek dara jaru ko ci àddina te kuy wax loo xam ne leeru la yàgg-yàgg rek bis dina ñëw ndax léeg-léeg eh, wolof yi di lépp ñu ne gune bu reewee bu guddeew fan àddina yar ko waaye bu gàtteew fan bàmmeel yar ko yaar yooyu nag lenn mënu cee ñàkk moom kay gudd fan rek mbaa gàttu fan waaye xam nga luy gàttu fan mooy dund téeméeri at te tekki kooku mooy gàttu fan waaye ma ne amal 30 euh, ans yàlla tere waaye jëf nga fi loo xam ba allah yow muy diine deetu dañ kooku mooy tekki loolu nag la ñaan yàlla yàlla dimbali nu sunu population loolu dal leen kon ñu ngi balu àq ñëpp sëñ jàmme waaye di leen sant nag yéen itam ndax reportage bi ngeen def ci bi Korité ngay si leeral na lu bari am na ñoo xam ku leen noonu lii am na commune Thiénaba fii ba bitim réew ñi ngi woote ñu ni lii ku ko waxan duñ ko gëm te lan doon wax. mooy commune Thiénaba moo gën a ndóol commune Thiénaba amul dara defuñu fi dara mais déedéet gis nga min mbir doo toog di yàccaaral ñuy fab xaalis di dugal ci sa poos da ngay jóg dem jëli ko def ci sa poos loolu mooy fulla mooy fayda kon maa ngi ñaan askan wi ñëpp laa ko boole nag muy góor muy jigéen ak responsable boo mën a doon ak politicien boo mën a doon maa ngi ñaan yàlla yàlla dimbali la ba nga wàcce sa bopp ba mën a jariñ askan wi mbargaan nag moom li muy def nii jariñ na askan wi kon ñun ñëpp nañ fas fas yéene def loolu ndax tey day e, wax naa la fii léegi li la man bi may nekk waxambaane di am doole dëgg su ma masaa bay sama gerte ba mu ñor ba jaay ko damay fab xaalis ba dénkaani yére yi may xotti sax dama koy taxan gis nga métier doo ko rus a wax toll nay jamono boo duggee dakaar ñi la baykat nga mais da ngay am gàcce tey boo duggee dakaar ñuy la baykat nga feerta la ndax ñi gën a tekk ci réew mi boo demee Europe ña fa gën a tekki ay baykat la lañu loolu nag lañ bëgg senegal mel ni kon bu nu rus suñu métier ku ko ku ko dul woon def demal nga defi ko ñëpp ma ne commune ba ñëpp a mën a bay xeeba fi nekk rek waaye ñëpp a mën a bay ñëpp a donnu mbay kenn ku ci nekk bu sa bàyyi dul woon bay sa maam a ngi bay mais kon ñun la taxaw ñuy dem di jëggaani feneen loo xam danay dem rang ñu dul reseté wala ngay rang ba jant so doo am ab liggéey jaru ko te bis bu ne nga gis ku jàppaare ndakaaru cere ba dem ndakaaru wuti lu mu am mais suy ñëw buñ ko lebalul paas du ñibbisi waaw demal ci mbargaan bi saa boo gis sa njaboot en tout cas daal wax ji bari na eh, waaye lépp yiw rek la ñu ëmb njàmme nag di la sant Eh, yàgg directeur Alpha Sarr ak eh, taala mi nga àndal di leen gërëm eh, di leen ñaanal yàlla yal yàlla gën leen a jàppale yal na yàlla dimbali leen nekk télé boo xam day lëmbe réew mi ba ñuy wax ni télé bi nekk Thiénaba tele yépp moom la ñuy roy parce que seen liggéey rafet na seen yéene rafet na yal na yàlla àggale seen yéene ñépp kontaan na ci yéen amul lenn loo xam ne da ngeen di dem jëli ko pour tas am réew amul lenn lu ngeen di jëli pour yàq deru nit yéen lépp loo xam ne lu baax la askan wi war caa jariñu yéen loolu mooy seen liggéey mooy seen métier démb rek bi ma leen fekkee Thiénaba Gossas sama yaram dafa daw fii ba Thiénaba Gossas nga taal sa oto def ci sa gaasuwaal pour jëli image boo xam ni day jariñ nit ñi lu rëy la ci man moo tax la muy xumb xumb yéen rek yéen a fa ne kooku nag ndam la ci man parce que Thiénaba Gossas ab maire la muy maire wàjjur waaye tey maire wàjjur tey eh, maa ngi koy nuyu bu baax di sama xarit Moussa Touré mu jëf démb jëf ju kon moom itam mu ngi ñaan yàlla lii nga xam ne moo am ci commune ba maa ngi ñaan mu am ci commune am ndax tey yaakaar naan commune wàjjur mbargaan bi bu nekkoon ci commune wàjjur tey kenn du laa sa appel naa dama bëgg nit ñi liggéey ndax man ma fay bay maa ci xam dara man su nawet jotee su ma xëyee maay dem ba wóor ma ne sama poos li ci nekk ñi nekk ci tool bi mënuma leen a fay te duma xam fu ñu jóge loolu nag laa bëgg waa Thiénaba nan ñu dimbali nan dem liggéey ku wàcc kër goo gis am na ñaari jeeg mbaa ñetti jeeg nan fa bàyyi kenn mu dem toggi ñu dem liggéey kër goo gis am na ñaari xale yu góor wala ñetti xale yu góor ki mënta dem na toog ki mën a dem na dem liggéey yor ñi ci des mbay rek nga mën a toog ren ba déwén di dundal sa fukki moroom te kenn du ko yëg mbay rek moo ko man mais dama ne gàtt wërsëg mi ngi yam ci weer wu dee nga xam li ngay am mbay nag yàllaa ko barkeel ba lépp lu ci jóge day barkeel bi ma ciy dolli rek mooy moom dama koy junju ndax reportage bi defar nga ko fii muy ci projet jigéen ñi seen financement yi financement yooyu dañoo ñëwoon fii wax ak ñoom ni leen ubbi leen ay compte dañ leen jëkk a expliquer ni mu demee yàlla dogal ñu ñëwaat fi beneen suur boo xam ci lañ leen war a ubbee compte yi waaye ba léegi euh, groupement yi des na te ñu bari ay caaxaan lañ ko teg ma di leen xamal ni euh, lanu leen waxaan dara du ci deñ bu ko yàlla dogalee samedi dinaa signé ji seg bi mardi ñi déposé des na leen jox seen xaalis ci mairie bi kon képp koo xam ne ubbi woo woon kont demal nga ubbi compte parce que mbir yi du ay caaxaan dama leen a xamal ni leen dama leen a waxal ne état bi li muy joxe ci man la jaar samedi dinaa sañe sec bi cinquante millions mardi ku ñëw mairie jot sa xaalis kon maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ah, jërëjëf jërëjëf monsieur le maire euh, waaye jërëjëf yow téléspectateur bi nga xamee ni boob ba léegi euh, yaa ngi ànd ak ñun xam naa euh, bala maa ñëw ci commentaire u tool yi damay ñëw rek ci jaajëf jooju nga xam ni yëkkati nga ko jëmale ko ci Thiénaba TV Thiénaba TV ñoom seen waar la ñuy bay ci tool bi ndax tool bi yaatu na damay wax ni yàgg nañoo wax ñett yi waaye wax ak gëstu xool la ñuy wax est-ce que ñu ngi koy jëfee wala déet baax na ndax dañ ni maam Ahmadou Ndaak Seck bi muy sos dëkk bi euh, dañuy àlluwa àll ba allahu akbar àlluwa euh, ji mooy daara yi daara yi moom ñëpp xam nañ ni cana ba daara yi tàkk na àll euh, ba mooy bay bay nag moom ñun waa cana ba dañ koo bàyyi woon waaye Youssou Mbergane delloo siwaat na ko ci commune bi ndax bu ngeen déggee ñu ni mille cinq cent personnes la ñu soxla ah yow ñu may seetaan nag di wax naan xañ na mbayub nawet bi ñetti weer lay jël tey mbay a ngi nii moo xam ne nii euh, bu nawet ñëwul noor la war nañ koo mën a def waaye damay wax ni euh, yow mi seetaan calcul bi ngay war a njëkk a def mooy danaa fa jël sama journée su ma wàccee waaye nag bul fàtte ni nit nga xel nga yore foofu ngay xëy di fa wàcc yaa ngi fay jëlee formation boo xam ne bu ëllëgee danga nga fa mën a am foo jaar ba def loo war a mën a def personnellement man noonu laa ko gisee ndax nit nag moom bu amee xel sëgg ci dara faw mu am am njàng moom fu jànge kon bul jàpp rek ni sax nangam bii rek lañ may fay am na leneen loo fay jëlee loo xam ni euh, yow yaa koy yóbbaaleel kenn du ko nangu kon formation la bu am solo Pape Dieng wax na ko nee na euh, fee ma nekk daal nekk naa fa à l'aise man ak El Hadj kon maa ngi woo sama mbokk yi nga xamee ni ñoom laa dëkkal euh, waa commune bi waaye nag fàttewuma tamit yeneen commune yi sës si man ndax teraanga ji teraangay Sénégal Euh, teranga région cees la waaye teranga département Thiès la kon monsieur le maire ñu ngi lay jaajëfal euh, ci teranga ju yaatu jooju euh, man daal xam naa ni à partir de ba man dinaa commencé recrutement recrutement bi nag ngëyeen laa koy commencé waaw ci jéegi ngëyeen laay commencé xool nan laay def ak ñoom ba ñu nag xool nu ñu mën a organiser wu ba dem ca toolu mbergaane bu ko defee bu ma génnee foofu taxaw ci mbedd mi nag waa ciise yi ma woo leen woo waa Euh, woowaa waa Paaleen woo ñëpp ñu daal di xool nan la ñuy organiser woo ndax nag ña fa ña ma fekk ca toole keroog seeni i moroom lañ ak sax ñoo xam ne ñoo leen mag waaw Pape Dieng wax na ko léegi ay maire yoo xam ni ay borom yi at lañ waaye ñoom ñu ngi leen teg euh, ñuy tànn pomiteer tànn ñëpp a ko man nañu xoolaat euh, ñu gën a nag waxtaan ak njaboot gi xale yi yi nga xamee ni xañ na defuñu dara jànguñu métier xëyuñu defuñu dara macha allah am xëy ngi nii kuy wax naan xëyuma xëyuma nag da ngaa amul xëy waaye xëy moom fi nekk am na euh, la bàyyi abdu ne woon lay jeex na lay moom amatul kon maa ngi euh, lancé appel euh, ñëpp rek ñu ngi lay jaajëfal monsieur le maire ci taxawaay communication bi leer na ndax souvent yi fañ ko daan dégg mooy jamonoy campagne jamonoy campagne dañ daan dégg politicien taxaw daan ni ah mille cinq cent emplois am na wala 1000 emplois am na waaye tey lii lu concret la loo xam ni da nga cee mën a dut sa baaraam suba suba yow suba boo xëyee dem mbergaan boo demee ñu ubbi la bunt yi nga dem liggéey loolu nag moom lu ko gën a leer mun amul kon euh, loolu mooy mbir bi ñu ko doon partagé euh, di jaajëfal Thiénaba TV euh, moom fépp fu mu jëlee njariñ rek dina ko jël indil ko askan wi ñu ngi àndoon nag ak Talla Sarr moo jël si woon moo yore woon caméra bi Moussa Ndiame Gueye moo yore woon micro bi joxante dig daje incha allah yeneen i jataay jàmm ak xéewal ak sutura yàlla na yàlla di musaawaan